ami site internet Buzz Actu 221 dal leen ak jàmm seen chaîne YouTube bi leen di jox ay xibaar yu wér te wóor leen ngir ngeen di mën a jot suñu ay xibaar saa su ñu daal di koy doore nag li jëm wàllum tàmbalewaat njàngale mi foofee ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ki di njiitu réew mi di Macky Sall nag jël ab dogal ne nag bile université laata rek muy reprendre li nga xamante ni mooy njàngale mi faw rek élection présidentielle atum 2024 yi mën a jàll di loo xamante ni nag kii di avocat Branco daal di addu ci mbir mi lee ne nag moom jiitu réew mi di Macky Sall dafa daal di jël bi la ndogal par peur de contestation waaye tamit di samp laaj ne nag lan moo tax moom jiitu réew mi di jël

Macky Sall ci jëf yi nga xamante ni moo ngi koy teg askanam ko moom maître Juana Branco daal di xamle nag li jëm ci 1500 prisonniers politiques bi ñu nga xamante ni rek leen daal di teg loxo tëj leen ci kaso bi te li nga xamante mooy seen droit waaye tamit seen ak ak yelleef depuis boobu léegi rek dañ leen daal di seetaan kenn àddu ci mu wax ne nag loolee ab injuste boo xamante ni war nañ si jukk waaye tamit mu jëmale ko nag ci bile université na ko teg ci suuf ndaxte loolee àdduwula dara li jëm ci wàllum politique te décision boobee bu ko defee dafay mel ni rek mu nga daal di sacrifier ndaw yi ba tax nag moom avocat franco espagnol milier di maître Juan Branco daal di yëkkati ay kàddu nag jëmale ko si ki nga xamante ni mooy njiitu réew mi di Macky Sall ci dogal bi nga xamante ni rek jamono jilee daal na koy jël jëmale ko nag foofee ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru